il y a un débat sur l'éligibilité sur l'inéligibilité de de Ousmane Sonko ñoom jàpp nañ ne il est il est inéligible il est contumace. Mm-hmm. et puis radié nañ ko des listes électorales. Mm-hmm. waa Pastef li ñuy bañ a dégg radié nañ ko des listes électorales. dissoudre nañu euh, partem <coughs> euh, Ousmane Sonko mu ngi nekk en en en en prison gëwuma ndax à moins que mu am un bouleversement majeur. que d'ici 24 février mu am lu mën a induire un changement ba permettre à Ousmane Sonko de recouvrer la la liberté et euh, permettre à Pastef juge juge c'est possible ah juge bi mën na mën na mën na arbitrer en en faveur mën na casser la la la la décision permet à Pastef de revenir un parti légalement euh, reconnu permettre à Ousmane Sonko de de de recouvrer ses droits hmm. et, poli et et xam nga li nga da nga wone ni lu mën a nekk la parce que ay pexe sax nga wone ay yoon juge bi mën na yu ci bëri c'est politique le président de la république Macky sal mën na nangam nangam nangam nañu situé wu sur les principes man nee nañu ministre de la justice nee na la condamnation est définitive donc Ousmane Sonko du mën a nekk candidat et beaucoup chose en en ont découlé man ma ni ko monsieur le ministre de la justice yow doo justice yow doo droit. yow doo constitution wu réew mi acteur politique nga. waaw mais en tant que ministre acteur, il a le droit de acteur, défendre il a le droit de défendre la prise de décision parewuma acteur politique la à partir du moment où dégg naa ko benn bis mu toog wax mu ni man mbiru troisième mandat du problème constitution pour man waxatuma waxi loolu politique laay wax te mooy ministre de la justice te constitutionaliste la ni moom la man dama décider en tant que citoyen waxuma sax politique te kii dootul waxati lu ma dégg ak lu ma gëm ci lu jëm ci justice su réew mi parce que solu ko jëmmalul suñu justice donte moom mooy le ministre de la justice kooku bu taxawee mu ni Ousmane Sonko du doon président la considération est définitive mu wax loolu ma dégg des dizaines et des dizaines de juristes tout aussi chevronnés que lui sans aucune attache partisane amuñu ci intérêt ci droit boo amee dara dañ naan quel est le mobile quel est l' intérêt kii laa ndax moo def nangam ak nangam ñooñu juriste yi may wax amuñu mobile amuñu ci intérêt ñu def ay analyse man may citoyen te du ma dof ma dem jëli suñu code de procédure pénale lire ko ma gis lu simple ci affaire u jugement par contumace article 307 ñu ne la bu nit ki ñu ñu ñu ci wolof ñu daan ko ci lu mu fekkewul ñu tuumaal ko atte ko ba ñu koy attee gisuñu ko ñu daan ko. gis nañ ko kay. waaw xar ma danaa fa ñëw <laughs> danaa fa ñëw ñu ne li yoon wax laa wax gisuñu ko xamuñu fu mu ne ñu daan ko contumace nekku fa ñu tuddee ko contumax suñu yoonu réew waxuma ministre bi li mu bëgg ak li mu wax ak politique bi muy def lan la yoonu senegal wax yoonu senegal mu ni la. bés bu ñu seetee kooku. ba gis ko ba gis ko ba jàpp ko. yoon waxul benn yoon ni ni ñu ko jàppee ak ci liñ ko jàpp dafa am solo yoon waxu ko yoonu Sénégal laay wax de loi wu Sénégal nañu tënku parce que bu may mën a bu ñu défendrul suñu loi ak suñu état de droit dara desu fi dara desu fi ay ay ay bàyyi ma comme àll bi lay doon. suñu yoon nee na bis bu ñu ko jàppee ak ci lu ñu ko waxul préciser wul ak ci lu ñu mais dafa ni rek bu ñu ko jàppee ça veut dire ci ku am xel l'esprit de la loi mooy moo xam dañ ko fekkoon ci toolu gerte muy sàcc ñu jàpp ko moo xam dafa doon xuloo buntu këram ñu jàpp ko moo xam ci teen bi lañ ko jàppee. moo xam ñu jàppee ko boolu téléphone portable. moo xam téléphone portable ak ko mën a jàppee dañ ko ne woon yow yoon a nga la doon wër gisu la te yoon jàpp na la loolu la xel nangu moo tax ñu ne l'esprit des lois ñu ne bu ñu ko jàppee rek daan ba ñu ko daanoon wadd na dañu war a recommencer koy jugé waat. sénégalais yi nga jàpp ni dañu résigné dañu def nangam dañu def nangam man dama gëm ni ñi ci ëpp gëm nañu ni loolu mooy l'esprit de la loi te noonu la waroon demee. defuñu ko parce que jaay nañu doole ñu toog seetaan waaye xam nañu ni y a une flagrante injustice ñu ngi xaar nag lu ñu koy faje j'espère que dina nekk ci élection pour ñu faje ko foofu man loolu laa bëgg. deuxième bi yoon ne bu fekkente ni <clears throat> jàppuñu ko moom moo dem ba seet ni. léegi kat nag daw naa ba sonn war naa delloo sama géej parce que amatuma fa làqu mu indi boppam ni jàppaleen ma loolu itam daan ba daanu na mais may mun na. bu mu indi bu indee boppam ne d'accord naa. ci ni ngeen ma daane baax day dem tëdd. penam waaw. ak lu ci mën a nekk ci kaw Ousmane Sonko ñoom ñoo ne woon xamuñu fu mu nekk ci koo xam ne mu ngi fii ci biir réew mi ñu dem jàppi ko ñëw tëj ko biir këram naan toujours xamuñu fu mu ne daan ko def lu neex tey ñu ni nag. jugement boobu c'est définitif donc du nekk xam nga pour nga mën a am sax yenn conclusion yi pour mu rafet loo gis rek même bu dee da ngay tappale na yenu maanaa amul argumentation ni juridique ni sax bu bu école primaire bu tax ñu yegg ci conclusion boobu donc pour man loolu c'est nul et de nul effet waxu ministre boobu tënkuwuma ci pour Cheikh Tidiane Dièye acteur politique allié de Ousmane Sonko de Pastef Ousmane Sonko et encore candidat il n'a pas perdu ses droits du fait de ce procès puisque beneen procès bu njëkk ba jeexul